ndeysaan final bàyyi noonu final poids lourd dimanche le 7 mai fii ci terrain Adama Diouf moo woote woon Adama ñëw dan ndeysaan tegal mbëli 2 millions 500 man jël la tànk ba ñoxor ba ne ñoxor ko bu bañ final bi mën na ñàkk mën na ñàkk yéen ndax mboot ñoxor eh, eh. takk na ko waaw ñoxor mi ñeme na ngañ seen ñoxor na ngañ seen donc eh, voilà na rek ndeysaan di bëgg sama Amadou Samb talibé Cheikh Ibra Ndour ndeysaan wala nga ne papaay Cheikh Ibra waaye fekk nañ ko lan bopp bisa du ba sama gaal ndeysaan takk gañ seen gañ seen gañ seen daan na ñoxor gañ seen daan na